asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéenee safoo seen bii di Buzz Actu 221 ñu ngi sàkku baax ngeen abonné aimé partage commentaire like ndakar loolu dina nekk saa su ne lu ñu daal di jàppale la mën nañ ne coow ki nga xam ni moo fa nekkoon capitaine bi woon foofee ca gendarmerie daal di yooyu turu Seydina Omar Touré ñu gën a xamee ci capitaine Touré ak ki nga xam ni mooy journaliste bi la di yooyu turu Cheikh Yérim coow boobu doxoon ci li nga xam ni moo di diffamation moom mi la Seydina Omar Touré di ex capitaine bi la di toppee ki nga xam ni moo di Cheikh Yérim Seck daanaka mën nañ ne boobu la procès ba léegi mu ngi ngi koy renvoyé di ko renvoyé di ko renvoyé rek mu nekk mbir bi nga xam ni kii di Ousmane Sonko su ko amoon ci diggante yi nga xam ne mooy ay procès kon ba léegi kenn àtteegu ko benn yoon tey jii nag moom mi nga xam ni moo fi moo nekkoon capitaine ba woon daal di ci turu Seydina Omar Touré di ex capitaine de la gendarmerie daal dina xamle bu baax a baax boobu la jàmbaarloo bi nga xam ni war na dox bu baax ci ki nga xam ni moo di journaliste bi lay wuyu turu Cheikh Yérim Seck ak moom mi lépp toxal nañ ko foofee ci tribunal bu grande instance de Dakar yemoo li nga xam ni moo la 12 juillet ci atum 2023 bi ñu nekk mu nekk mbir yi nga xam ni kon képp koo xam ni yaa ngi doon xaar boobule procès mun nañ ne boobule procès puusaat nañ ko bu baax ginnaaw bi ñu xam ni suñu tabaskee ba am li yemoo ba weer ba am li yemoo ci le 12 juillet wéy leen di abonné fi nga xam ni moo di Buzz Actu 221 ndax lu fi xibaar information jàngat ñu leen koy defal waaye di ñaan yàlla Sénégal mim réew yàlla na fi jàmm sax yàgg fi salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa